mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey suuratu abasa in alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk ñi ngi ci xéewal gu mag gi suñu borom xéewal ñu ba tey te mooy xéewalu dund ci biir weeru koor moo wërsëgal ñu it ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng la nga xam ne mooy ab téeréem téere boobu nga xam ne nit ñu baax ne jiitu woon su weeru koor ma san jot daan bàyyi lu lépp ittewoo téere bi yàlla bi ci di ko jàng ci di ko settantal ngir dabu barke ba nga xam ni ca la ko yàlla wàcce woon kon loolu mooy jubluwaayu suñu toogaay bi yal na yàlla nangul ñu te nangul bépp jullit kon insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سني بروم سبحانه وتعالى مني عبس ñëkkal na kanamam ga ay gàññi na wa tawalla mu daa di dummóoyu an jaahu l ama ndax da koo dikkal silmaxa ba wa ma yudrika laallahu yazakka mënu lay xamal ne moom kat mën naa nekk ci ñuy sellal seen bakkan aw yazakkaru fa tanfaahu zikra wala mu fàttaliku mu jëriñ ko fàttali ga amma man istaghna bu dee ki nga xam ne nag moom daa doylu woom li ci alquran fa anta lahu tasadda yow yaa ngi nekk ñeel ko jublu ci moom wa ma alayka alla yazakka doonte ne day dara nekkul ci yow ci moom bu sellalul boppam wa amma man jaaka yas'a bu dee ki nga xam ne nag moo la dikkal di waaxu di ittewoo jëm ci yow wa huwa yaxsha booleeg ma nga ragal yàlla fa anta anhu talaha yow yaa ngi nekk ci moom ku koy saggane kalla innaha tazkira déedéet lii lay xamal ne ak fàttali la faman shaa zakara ku mu soob mu fàttaliku ko fii soxofin mukarrama mi ngi ci ay këyit yoo xam ne yu ñu teral la marfuatin mutahara yu ñu kawel la yu ñu laabal la bi ayidi safara ci loxo yi ay ndaw muy malaka ya kiraamin barara ñu tedd ca doon ñu baax qutila al insaanu ma akfara ay waay doomu aadama yàlla na dee aka tar nu muy weddee aka nekk aji weddikat min ay shay'in xalaqa waaye moom ci lan la ko bindi ay la ko boromam bindi min nutfatin xalaqahu fa qaddara ci toqamani yu la ko boromam bindi gannaaw ba suñu borom dogal jëm ci moom summa sabila yassara gannaaw ba yoonam ba mu yombalal ko ko summa amaatahu fa aqbara gannaaw ba mu daal di koy rey daal di koy denc ci bàmmeel summa ida shaa anshara gannaaw heure bu ko soobee mu daal di koy dekkal kallaa déedéet lamma yaqdi ma amara moom day pareegul ca la nga xam ne moom lañ ko santoon nekkul ku ko jëfee mi ngi noonu mbokk lii mooy suratu abasa bi nga xam ne ñëwoon na di yedd suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam muy wane ne nit la woon comme ñun koo xam ne da daan juum la ka wuute la ak ñun mooy moom fu fu mu juumee yàlla wàcc ci moom alquran xamal na ko dangaa juum diine mi ngi commencé yàqu nag biñ demee ba am ñenn ci ñun ñu ñu jàpp ne ñoom duñu juum lu ñu wax noonu la lu ñu jëf noonu la waaye mbokk loolu yàlla mësu koo may ab jaam bu doon dana ko may ab jaam mu may ko jaamam bi gënoon ci doon ñu doon dox ci kaw suuf muy suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam yeneen ci boobu toog na ca Kaaba ga lenn ci waa Quraysh kilifa ya Abu Jahal Umay ibnul Xawf ak ñu demee noonu ñëw wër ko waaw Muhammad waaw jàngal ñu liggéey wax ñu dégg mu kontaan lool am itti lool bi mu nekk di waxeek ñoom am benn silmaxa bu ñuy tuddee abdullah ibnu ummi maktum moom xamul lu xew ma nga jóge fële rek këlëng-këlëng ak yatam ñëw yaa rasulallah yonent bi da ko naam mu ne ko waaye jàngal ma lii mujj wàcc ci alquran fekk yonent baa ngi jàkkaarloog notable Quraysh yi occasion boobu mu koy yàqal ca xam ne ñii bëgguñoo toog ak ku mel ni abdullah bi loolee tax kanam gi daal di ñëkk mu daal di dummoo yu tontuwu ko loolu suñu borom yàlla bi mu koy wàccee ngir cër bu mu jox suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam donte ne moo ko bind moo ko moom waaye dafa mel ne keneen lay waxal rek keneen koo xam ne abasa wa tawalla ca mooy jàkkaarloowul ak moom directement na ko lu tax ngay dummóoyu mi ngi noonu jalla wa ala léegi suñu borom daal dina waaw moom de mi ngi nii di dummóoyu di wane mi ngi ñëkkal kanamam dummóoyu ndax silmaxa mi da koo dëkkal te loolu it mbokku islaam bañul ku yàlla teg ab nattu ñu koy woowe nattu ba suñ ci jublee xamle ko bañ caa jublu saboote ko masalan kooku la muhammad ah mooy silmaxa bi ñu ne waaw kooku moom dara newu ci ah diw borom benn loxo bi ah non dara nekku ci diw mooy kooku ca mu la fañ waaw loolu moom boo ci jubloo xamle islam bañu ko amma boo ci jubloo saboote nag loolu moom beneen mbir la kon silmaxa ba daal di koy jëkkal suñ borom yàlla ne ko yow kan moo lay xamal ni kii moom boo ko waaree dana doon kuy sellal boppam ca yow lala indi mooy sellal bakkani jaam yi bi iznillah mi ngi noonu yatlu alayhim alkitab wal xikma wa yuzakkihim di lay indi mooy loolu xamal nit ñi fu ñuy jaar ba mucc ci shirk xamal leen fu ñuy jaar ba seen bakkan yi kawe ndax zakat boobu mooy luy laabal di ful di kaweel wala boog alquran ji mu jàpp ko wattu ko di ko fàttali ko fu mu mën a nekk loolee doon lu koy jëriñ ca yow it loolu dong moo taxoon ñu yóbbu ñu indi la ci kaw suuf mi ngi noonu innaha tazkira mooy innama anta muzakkir doo dara lu dul koy waaraati léegi yow nga am occasion kii moom ñëw di la laaj yow nga di ko dum mooy loolu di benn défaut ñaareelu njuumte bi mu ne ko ñii nga xam ne wóor na la ne alal ji ñu yor ak daraja yi ñu yor jàpp nañ ne soxlawuñu diine yàlla ji mooy man istaghna ku mel noonu yaa ngi sonn jëm ci moom di ko dabu te it mbokk mi ngi noonu lu bari ci doomu aadama yi su yàlla yaatalee seen wërsëg may leen ay pal dañuy jàpp ne ñoom soxlaatuñu diine yàlla ji mbokk jataay yu mel nii nga def fa wàññi ci ay ministre dana jafe de wàññi ci milliardaire dana jafe de loolu mi ngi noonu lu dul ña yàlla subhanahu wa taala baaxee kon ñii nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom woom leen nañu yow looy nekk di jublu ci ñoom xanaa xamoo ne yow dara wóorul la bu dee ne ñoom laabuluñ seen bakkan loolu lu sa yoon ci loolu ca mbokk ab yonent suñu borom nee na wa ma ala rasuli illa al balaa yonent dara wóoru ko lu dul jottali fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur kum neex gëmal kum neex weddi looloo tax ci kàttanu yàlla jalla wa ala ak i dogalam yonent dana ñëw yowmal qiyaama ñaar ñoo koy gëm yonent dana ñëw yowmal qiyaama kenn moo koy gëm bal yonent dana ñëw yowmal qiyaama te kenn du ko gëm loolu du tee seen mission dox nañ ko yàlla gërëm na leen ndax yàlla sant leen woon lu dul ñu jottali kon yow sa yoon nekkul ci ñu sellal seen bakkan ak ñu bañ koo sellal ma alayka allah yazakka borom bi delluwaat ca abdullah silmaxa boobu daal di ne ko kii nga xam ne nag dalaa dikkal moom ma ngay ittewoo yàkkamti jëm ci yow yasa mooy lépp loo ittewoo jëm ca rek dañ koy wax donte ne baat bi dëgg-dëgg mooy daw ca moom mi ngi nekk ku ragal yàlla dara indiwu ko ci yow lu doon ragal yàlla yow yaa ngi doon koo xam ne nii yaa ngi koy saggane yaa ngi koy saggane sunu borom na ko nag ngallaawaay lu mel noonu bu mu amati mukk ci àdduna xamal ne lii ak fàttali la képp ku mu soob ne fàttaliku ci loolu yemala ci ñiy buur ak ñiy baadoo la ñi am ak ñi ñàkk yeme leen ñoom ci loolu mbokk lii aay bi gis nañu bi mu wàccee suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam am na yëkkati goo xam ne yëkkati na ko abdullah boobu ba fu mu ko masal seen muy ñëw day jóg taxaw daal dina ko marhaban bi man aatabani fiihi rabbi kaay dal yow mi nga xam ne yaa tax sama borom yedd ma toogal ko fi muy toog yonent bi alayhi salaam lu ëpp fukki yoon heure bu daan génn Madina Abdullah lay nami mu nekk intérim bi ka fa wóotu di jiite julli yi di régler problème Madina loolee suñu borom mi ngi ci defoon occasion ngir yëkkati darajay fuqaraa yi ñu xam ne seen borom ku leen ittewoo la ca seen borom yàlla na ko yonent bi alayhi salaam waxe laa yanzuru ila suwarikum wa amwalikum innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum yàlla itti woowul jëmmi doomu aadama yi itti woowul seeni alal waaye mi ngi itti woo la nga xamee ni ni mooy seen xol ya ak seen jëf ya moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ak sahaaba yi benn waay romb ak fasam am mandargay taaru àdduna bu nekk yonent bi alayhi salaam ne lu ngeen xam ci kii ñu ne kii di ñu xam ci moom mooy mbooloo mu taxaw di wax ñépp déglu ko fu mu fëgg ñaan jabar ñu may ko wax a wax a wax a wax yonent bi noppi yàggul dara kenn ci fuqara ci nekkoon ci Madina romb daal di nuyoo jàll yonent bi ne ñim toogal loolu ngeen xam ci kii ñu ne kii de li ñu xam ci moom mooy ñi du wax mukk ci mbooloo te fu mu dem di ñaan soxna ñu dàq ko wax seeni wax yonent bi alayhi salaam ne leen de moo ni gis nga waa jee fi jaar sànq ak taaram su doon dañ koo duy ba mu fees dell ci suuf mbokk suuf li ko mën a feesal jéggi na dayoo ñi nga xam ne yàlla di leen a jaamuloo yàlla ñu ittiloo wu nekk mas naa dégg ñu naan les sept milliards ci kaw suuf bu ñu leen bëggoon regrouper day jël vingt cinq mille vingt cinq kilomètres carrés vingt cinq kilomètres carrés rek mën nañ ci regrouper sept milliards waaw léegi ku bëggoon nag planète terre yépp nga def ci ay nit ñaati milliers de milliards ou bien des millions de milliards nga indi yeneen ci bari sanam la ñu leen gis ngeen kenn kii moo gën a màgg ci yàlla bu doon kële dañ koo duy suuf ba mu fees muy wàññi ne balance bi suñu borom di natte ak balance bi nit ñi natte bokkul loolu it mbokk ma yonent bi alayhi salaam depuis keroog la bàyyi xel ne politique gu diine yàlla ji du ko tax mukk muy gënale kenn ci kaw kenn te doonte ne loolu mu def bu ko keneen defoon mën nañ koo tuddee félicitation ndax yonent bi alayhi salaam bi muy yëkkati ñi yëkkatiwu leen pour jël li nekk seen poche comme niñ koy defee suñ jamono yi tey soo demee ci daje yi ñuy tuddee daje diine da ngay gis ne turbine yi day am carte doore boo xam ne bi ngay ñëw boo gaariwul 4x4 bokkaale 100000 doo fa toog am na beneen carte boo xam ne nii second classe fay def waa gitt ba yi nag ñoom ñu nga fële gis ngeen mooy ñi ci des mbokk diine musul demee noonu xool leen jàkk ji ngeen toog ndax wax nañu bi ñu ñëw ne millionnaires yi ñëw fii ay yéen baadole di leen ci gannaaw déedéet tey jii le ministre bu wàccoon di jëli su mbooloo ànd ak chauffeur am bu ñëwee seeni mbagg day tegante am déet ndax lii muy diine yàlla waaye am na kenn ku nekk fii ci jàkka ji ak ñun mi ngi ci tafsir bi am na mbooloo bu mu bokkoon keroog ba ko yàlla di leeral ab xolam kenn ci kilifa yu mag ci réew mi la dem ñu xëy suba ba ngoon di rang ñuy dugal mbooloo mbooloo ñuy rang di rang ca rang bi kat mooy pour indi enveloppe xaalis nee na bi ñuy rang di rang di rang ba seen rang sës ñu war a dugg am benn kilifa gu mag daal di gaare ab Mercedes am bëkk ni gi ni kër kër kër kër daal di ne mbooloo mi may leen sëñ bi dafa am gan kilifa ga yàgg fa lool bi muy génn ñu ne waaw comme sëñ bi daa sonn léegi dootul groupe groupe yéen ñëpp duggaloo ndéer rek ngeen gis sëñ bi ñu daje sëñ bi mën mën ëf ngeen dem ni bi yéegéen ba mu ni bisee ca la xalaat ca la daal dëgg dëgg dëgg sëñ bi lii ma nekk moom xawma lu mu doon woo ñam ko séqaloo ñu leen xam ngeen sa waay mun naa gis na tey bàyyi naa seen kees gi ñu ne ko lay wax ni mun a mbooloo mi sax far naa ko bàyyi te la ko yàlla wëlbatee mu daal di sax yaakaaratul ku dul yàlla royatul ku dul yeneen ci yàlla yàlla na sax yàlla saxaluñ ci comme noonu nañ ko saxale bañ daje suñu borom mbokk lii mooy la nga xam ne lu ci bari tey ci mbooloo diine yi wala mbooloo yi ñuy tuddee dajee diine mooy ségrégation boobu mooy la nga xam ne am na fa suñu boroom mi nga xam ne moo xam ay jaamam suñu delloo ci abdullah ibnu ibnu maktum boobu nga xam ne moo tax suñu boroom wàcc alquran yàlla moo gën a xam ay jaamam abdullah silmaxa la mënoon naa toog jàkka yonent bi alayhi salaam di nodd ca jàkk yonent bi ñaari noddkat laa boof noddkat principal ba moo doon bilaal waaye comme fajar fokk mu am ñaareelu nodd abdullah bi moo doon nodd ñaareelu nodd fajar ga mënoon na faa toog rek naan fii lay may noddkatu yonent bi alayhi salaam ila axiri waaye dafa génnoon di jihaad fi sabilillah ca yàlla wàcce na ci aaya ne laysa ala al ama xaraj kii nekk silmaxa ña yàlla di yedd naan jihaatuñu silmaxa ba mu bokk ci waaye moom daa génn dem loolu gars yi ba ko découragé mu ne hey suñu borom dane amuñu benn ngànt ci bañ a dem waaye yàlla terewuñu ñu dem dem am na xare bu ñu tuddee xare qadisiya di xare bu tar bu metti boo xam ne jullit ñi ñu ngi ko doon xeex ak waa ruum yi nga xam ne ñoom matoon nañu cent mille jullit yi nekkoon trente mille xeex ya metti ay fan ba bis bi nga xamee ne nii ca la yàlla dogal ñu nar a gañe abdullah daf ne hey jox leen ma drapeau bi comme man silmaxa la du ma xam fu ma daw jëm bay daw gaa yi jël drapeau bi jox ko moom moo jiite xare bi keroog dem nañ ba ñu dagg la nga xam ne mooy benn loxoom moom mooy drapeau bi ak kuñ bi ak beneen loxo bi xuus ba noonu lañ ko reyee keroog saxaaba yi xeex nañ vingt quatre heures fajar lañu attaqué di xeex ba fajar di lu siwaat romain yi doo ko daw ñu dàq leen loolu mooy ak qadisiya kon ba suñu borom di wàcc ci moom alxuraan wàcce na ko ci ku jara wàcce alxuraan loolu mbokk mi ngi noonu di sahabatul kiram borom boobu subhanahu wa taala kon loolu la wax ci loolu ñu jàng mu wëlbatiku nag ci ab téeréem ne xam leen ne lii day ak fàttali la ku mu soob fàttali ko ku mu soob wane gannaaw doonte ne jàngoon nañ ca gannaaw suñu borom mu ne wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin du ngeen mën a soob jaar ci yoon ba dul mu soob yàlla looloo tax jullit day boole ñaar boole dogu ak boole ñaan yàlla moo tax lu mu néew néew fukkeel ak juróom-ñaar da nga taxaw ci kanamu borom bi bàkk ko màggal ko ñaan ko mu boole la ci ñim jubal ila siratul mustaqim borom bi ne nee na mi ngi nekk ci soxuf mooy yiñ daan bindee bu njëkk yu ñu kaweel lu bari ci mufassiroona yi ñu ne aaya yi yàlla ngi ci jublu fa cosaanu alquran nekk di laxawil mahfuus nga xam ne lu ñu kaweel lu ñu teral la suñu boroom kaweel ko laabal ko seytaane du ko jege mi ngi noonu kenn du laal loolu lu dul ña yàlla tànn ci ay malaak muy ay di day di safara ña yàlla tànn ci ay malaaka nga xam ni malaaka yu tedd lañu doon waaye barara malaaka yu baax yoo xam ni ñoom faruñoo sax mën a def bakkaar mi ngi noonu al abraar mooy ñey moytu bakkaar yu mag ya sax ci mbaax loolu mooy malaaka yi doonte ne ne gis nañu it ne téere boobee suñu borom wax ci laxuy mahfuus mbokk exemplaire am ngeen yor nii mooy wax ja ca nekk moo nekk ci seen téere yi loolu it alquran ji mbokk suñu borom it teral ko te it mu war yow jullit ngay teral téere bi yàlla bi yow tamit yëkkati ko laabal ko ngal la way jullit même bu dee ixtilaaf am na ca borom xam-xam ya ndax koo xamee ni nii jàppul mën naa jël téere bi di ci jàngam déet ngal la waay ci ay teggin fexeel ba bala ngaa jël téere bi yàlla bi nga daal di ànd ak la nga xam ne mooy ab laaf ndax suñ borom moo ko teral te suñ borom moo ko laabal mu bokkit ci li nga xam ne dañ koy tuddee as safara kiraamin barora loolu dañ ne képp ko yàlla may nga wattu alquran war ngaa góorgóorlu doon ko tedd doon ko baax koo xam ne alquran day feeñ ci say jëf loolu mi ngi noonu donte ne wattu alquran ba jubluwuñ ca man kaa tari rek loolu benn étape la ca waaye wattu alquran dëgg-dëgg mooy xam alquran la muy jàngale ak la muy woote jëme loolu mbokk moo aju ci màggal bu yàlla màggal ab téeréem mu dellu si nag ci doomu aadama suñu borom mu ne doomu aadama yàlla na dee loolu rëbb la boo xam ne rëbb na ko la ëpp ci ñun te it mbokk buñ demee àllaaxira la ëpp ci ñun bal mille personnes yu ñëw àllaaxira juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent muy neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yépp ñu ngi dugg ci waxi borom bi ca mooy dañoo mooy seen borom suñ borom mu ne ak a tar nu ñuy weddee lu tax mu tar ni ñuy weddee am na junniy mbir yu daje ci doomu aadama yi waroon a tax mu gëm boromam wéetal boromam waaye jëfandikoo woo ci dara borom bi indi ci la ca gën a essentiel mu ne ma moom ci lan lañ ko bindee mbokk doomu aadama suñu borom mu ne mi ngi la binde ci toq maniyu ca la la binde gannaaw ba mu dogal la jàngoon nañ ko sax ci ay yi passé xalaqakum atwaara toq maniyu bi mu wëlbati ko def ko ay lumbu deret def ko yàpp dugal ci ay yax wadd ko xaddarahu xool na ko neex mu def la góor wala jigéen melal la da ngaa ñuul da ngaa xees defar say loxoog say tànk ak say bët yemale la dogal ci yow la nga xam ne moo ko soob wëlbati ko yombalal la aw yoon ca loolu itamit da ngay gis doomu aadama famille en juddoo ku ko xam xam ne ku fa génne yàlla la yombalal yi ngi noonu ku fa génne yàlla la yombalal ca loolu doomu aadama xarak lu mu mën a doon ca nit ki bu amee juróom benn weer ci biiru yaayam ci bëri bopp ba day féete kaw waaye day daal di wëlbatiku bu demee ba jëm ci juddu wëlbatiku suñ borom tegtal ko bunt ba muy jaar mu daal di fay dóor boppam ba di puus di puus di puus ba ba yàlla subhanahu wa taala yombal ko mu daal di génn allahuma lu dul ci ay cas exceptionnel léeg-léeg suñu borom di wane lu ko neex comme ni muy waxee ne maa leen may ay dégg ak gis am na jaam yu mu ko xañ naka noonu it am na cas exceptionnel ci ay jigéen ñuy am doom yàlla dogal mat ma par ba baa ñu jaare ca faatu waaye ñooñu itamit su yonent alayhi salaam mi ngi leen boole ci ñi shahid ci aw yoonam loolu muy mbir bi waaye mën nañu wax ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci doomu aadama yi juddu moom suñ borom yombalal na leen seen yoon ñu daal di génn ci foo xam ne bu dul woon ak yombalug yàlla génn fa xel mënu ko xalaat donte ni loolu borom bi wax suma sabila yassara bokk na ci it mu fassiru na yi ko firi mooy yoon ba mu jaar yàlla ko yombalal ay yu day naahu na ji day soo bëggee jaar yoon bu baax yàlla yombalal la loo mën a jaar ba jaar fu baax soo tànnee yoon ba bon it yàlla yombalal na la foo jaar dem bu bon yéen ñi nekk ñi ci jàkka ji bu leen neexoon léegi dem toog ca baar ba bu leen neexoon léegi dem toog ci night club ya amul lenn lu nit ku bon di def lu dul nit ku baax mën na ko doonte ne amul lenn lu nit ku baax di def lu dul nit ku bon mën na ko suñ borom moo yombalal doomu aadama yoon bi mu war a jaar léegi nag imma shakiran wa imma kafura bu la neexee sant bu la neexee wet borom boobu nag ne fu mu mën a jaarit lu mu yàgg-yàgg yàlla da koy rey bokk nañu xam ne yàlla mooy rey amul lenn luy expliquer dee lu dul ci yàlla lay jóge kese jeex na bu dul woon looloo tey da ngay gis ndeysaan koo xam ne ni bu sonnee yàlla may na ko suut ma nga dem Amérique lu ne ma ngi koy daj hôpital yi gën a kawe waaye mbokk hôpital yi boo taxawoon laajte ana morgue bi ñu won la ko ab déet amul benn hôpital bu mag ci kaw suuf lu dul boo laajtee morgue bi ñu woon la ko kon la chaque ne mbokk dee moom kenn mënu ci dara yàlla mooy rey ay jaamam tey jii ci kaw suuf amul kenn kuñ fiy joxoñ ne mi ngi am deux siècles de vie xanaa kay téeméer rek nangam la ñu laam-laami waaye tey ku ñuy joxoñ ci kaw suuf naan def na fi deux siècles amul li ngeen di gis ci internet dañuy kàcc rek dara nekku ci diw dund na téeméer at ak juróom-ñett fukk ak fépp dañuy wax lu neex rek yaa ngi dégg su ko defee kon loolu la doomu aadama war a xam yàlla da koy rey bu ko yàlla reyee it yàlla teral ko teral ko ñu denc ko teraanga boobu mi ngi jëkk a commencé ci doomu aadama ji jëkk a dee ci kaw suuf nga xam ne frère am moo ko rey frère boobu di qaabil moo rey haabil bi mu ko rey jaaxle ndax kii mu jëkk a dee ci kaw suuf léeg-léeg mu yenu ko teg ko ci garab gi léeg-léeg mu yenu ko kii ndax ba ko seytaane bakkanam ma ne ba mu rey ko rek automatiquement lu rëcc fa asbaha min annadimin xamul lu muy def suñ borom yàlla yónnee ñaari baaxoñ ñaari baaxoñ yi xeex ci kanamam kenn ki rey moroomam daal di gas gas gas gas ba mu xóot mu jël morom ji dugal ko daal di koy suul ca baaxoñ yi noonu la ñuy def am na it bàyyi mu yi bëri yu koy def mi ngi noonu xatta yenn golo yi dañ koy def loolu mu ne yaa waylata a ajastu an akuna misla hada alxura mu ne ay waay alkaa nga ñeel na ma am na lu teewoon ma mel ne baaxoñ bi suturaal sama frère bi ca la xalaat gas gas daal di koy suul te loolu it mbokk doomu aadama yàlla ko teral fu ñu ko gis dañ ko war a suul xatta julit ñi bu yéeféer dee woon fii te ay mbokk yéeféeram ñëw ñu jël ko ñun dañ ko war a jël yóbbu ca àll ba suul ko ngi noonu amma bu dee suñu mbokk julit moo faatu loolu fardul kifaaya la ba tey ñu yóbbu ko ca armée la julit yu suul ko buñ ko suulul bàyyi ko fii ba mu nëb dëkk bi yépp ay am bakkaar kon fa amaatahu fa aqbara yàlla moo ko faat yàlla moo ko denc ci xabru borom boobu nag ne summa ida shaa anshara heure bu ko neexee mu dekkal ko ca loolu muy wanee doy di doomu aadama toq ma nii nga jóge jaar sa biiru yaay génne fa jaar biir suuf suñu borom ne mën naa laa génne te yàlla mi la dugaloon ci toq man yi su biiru yaay génn la ngay doon ab liir su leen ne da nga génne ci bàmmeel bi nga nekkoon wëlbati ko doon ab doomu aadama borom xel mënul nangu loolu mënul bañ a nangu loolu looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala daañu ne kalla doomu aadama li nga xalaati du noonu lamma yaqdi ma amara doomu aadama day deful matalul la nga xam ne moom lañ ko santoon donte ni nit ñi wuute nañ ci loolu bu dee yéefar yaag bokkaalekat ya la gënoon a màgg lañ leen sant mooy ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara na am loolu defuñu ko donte ne boo dellu woon ci jullit ñi mbokk amul benn jullit bu matal la ko yàlla sant yeneen takkudul yeneen li nga man kay mooy la yàlla wax ni fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kéemtalal kàttan looloo tax yonent yàlla bi heure bu ma saan pare ci jaamu yàlla la muy jëkk a def mooy jéggulu boroomam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah loolu ngiree ne suñu borom yàlla nam yeyoo ñu def ko ay ndigalam à cent pour cent loolee doomu aadama yàlla mayu ko mu man koo matal na am bu dee ponk ya nga xam ne nag mooy yi gën a kawe ak moytu yi gën a mag ci bakkaar loolee moom lu mel ni ulul azmi min rusul yeneen yi kawe yi ñoom matal nañ yooyu amma dem ba matal à cent pour cent loolee moom yàlla def na doomu aadama fokk mu am lu ko yàlla di jéggal yowmal qiyaama kenn rek la yàlla indil ak njéggal fii muy suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla ne yow loo ma sa def baal naa la loo nar a def baal naa la waaye loolu day firi ne yàlla baal na ko waaye firiwul ne daa matal à cent pour cent yàlla yàlla jéggal ñu fi dunia wal axira
فلينظر الإنسان إلى طعامه فإنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا فصل يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قشرة أولئك هم الكفرة الفجرة barakallahu fiik suñu borom mu ni falyanzur il insaanu ila taami ngalla way na xool doomu aadama jëm ciw ñamam anna sababna almaa sabba ñun yàlla day ñoo sotti ndox ma ak sotti summa shaqaqna al arda shaqa gannaaw ba ñu xotti suuf ak xotti fa ambatna fiha habba ñu saxal ci suuf soosee am pepp muy pepp ya dugub yàgg ceeb ak lu mën a doon wa inaban wa qadba saxal fa la nga xam ne mooy raisin ak ay légume wa zaytunan wa naxla saxal fa olive ak i tàndarma wa xadaiqa xulba ak ay jardin yoo xam ne garab yaa nga doon borom datt yu rëy muy tàndarma yu mag xulba wa fakihatan wa abba saxal ca ay fruit ak la nga xam ne mooy xont bañuy xontu jur gi abban mooy lépp luy sax ci àll bi ca doomu aadama jiwu ko fa mataan lakum wa li an'amikum lii lépp nekk xéewal ñeel leen yéen ak seenug jur fa ida jaati soox heure boo xam ne ñëw na la nga xam ne mooy foq nopp ya di yuux gu targooge nga xam ne day fatti nopp yawma yafirru al mar'u min axi bis bi nga xam ne doomu aadama dana daw frère am ba mbokkal ndey ak bàyyi wa ummihi daw yaayam wa ajihi daw ay baayam wa saahibatihi daw soxnaam wa banihi daw ay doomam li kulli imri'in minhum ndax day ñeel képp kenn ca ñoom yawma idin sha'nun yughnihi bi su ko rog boobee da koy ñeel mbir moo xam ne da koy itteel ci muy xalaat mbiri keneen wujuhun yawma idin musfira kanam ya bisi keroog dana doon lu leer daahikatum mustabshira doon aji ree doon aji luy wane ak mbégam wa wujuhun yawma idin alay alay alayha xëbara dana am ay kanam yoo xam ne bi si keroog pënd dana ko yiix ab pënd dana ko muur dana nekk ci kawam tarhaquha qatara mu daal di koy muur dogitug lëndëm muy qatara ulaika humul kafaratu alfajara ñooñu de ñuy aji weddee ci seen xol ya alfajara doon aji génn topp ci seen jëf ya suñu boroom joxe ne misaal bu mag ñeel doomu aadama ngiree mu wiital bopp boroomam ca gëm ne dana ko dekkal mu wax ñu fam ko jële ci toq mani yu ba baa fam koy nar a génni ci bàmmeelam waaye suñu borom mu ne doomu aadama it na xool jëm ci aw ñamam ñaati xéewal la ci yàlla daje ca yow caamin bi téemoon sa boolu ceebu jën di xool rek ceeb bi dëwlin ji ñambi ji jën yi karot yi suppeme yi xorom sa ko xorom kaani ga laaj ga kenn xamul ñaate élément la suñu borom yàlla wàcceel doomu aadama doomu aadama na xool ñamam waaye fan la ñam bi jóge mbokk ñam bi cosaanam mi ngi jóge ci taw xam leen ne mbokk ab taw mooy tax gàncax am mooy tax bàyyi ma dund moo tax suñu borom ne maa ko wàcce sotti ko ak sotti ndax kat bés bu ne ngeen dégg taw yoo xam ne Indonésie liy doonam fu mën a doon ñu naan rek dafa cinq cent mille personnes yàq kër ya yàq tool ya taw boobu du mooy indi gàncax taw bi bu dee dafa ñebbi ñebbi rek jàll du tax gàncax ñor kon fokk mu doon nu ko suñu borom nattali ab nattali wàcce ko ab wàcce ba taw bu nekk ak melukaanam comme niñ ko doon waxee ci yéen ba ñuy jàng midroora te mbokk taw bokkul quantité bokkul melokaan taw yi ceeboo ci début nawet bokkul melokaan ak taw yu wax set muy jamonoy ut bokkul melokaan ak taw yu sattumbar naka doon quantité yi bokkul suñu borom moo ko limité natte la ko waaye gannaaw ba mu wàccee taw boobu ci kaw suuf ay yow mbokk julit ndax doo xalaat benn pepp dugub boo xam ne boo demee borom bitig bi moom mënula ko peser ci ñuy jaay or nga dem ñu mën koo peser nga defee mu ne la pepp bi day mi ngi nekk peut-être zéro deux grammes nga jël ko pepp boobee dem gas suuf la nga ca diqatee ci suuf soosee peser ko mën na nekk genn wàll libre suuf nga ñëw tegaat ko ci kaw pepp dugub bi suul maase la ñu xool fii une semaine rek pepp bi ci boppam am na ñax bu ci am na lu ci génne lu mel na coton di puus di puus di puus suuf si ba génn ci biti kooku boo amuloon ku ko jàppale ndax dana sotti mu ngi noonu suñ borom nee na maa ubbi suuf suuf libéré loolu nga xam ne mooy gàncax googu mu daal di génn dem mu ngi noonu shaqaq na al arda shaqa tool bi nekk nii des milliards de gàncax génnandoo ci une semaine bi nga xam ne après taw bi commencé lépp vert loolu suñu borom mu ne moo ko def borom boobu yit ne man maa génn ci suuf façon pepp ñaate pepp moo am ci kaw suuf mbokk jullit lu doomu aadama mun a jëfandikoo kenn mënu koo lim suñu borom nee na maa ci génn raisin di loo xam ni lu arab yi xamoon la te it ba tey li ngay lekk ci kaw suuf raisin moom jàppal na moo ci gën a neex suñu borom génn ci ay légumes ñoom carotte ñoom pomme de terre ñoom pataas ñoom ila ixri kenn xamul lu mu toll ci ay légumes yoo xam ne ñoom ci biir suuf si dañuy màggee bokkul ak pepp bi nga xam ne day génn doog a màgg ñoom ci biir suuf la ñuy màggee ñoom ñambeeg ñoom ñeneen waaye may ñu la nga xam ne mooy zaytuun di olive ñu mën koo jël doom bi di ko lekk di ca jël diw gu ñuy toggee mi ngi noonu di garab gu barkeel def ci it la nga xam ne mooy tàndarma nga xam ne arab yi baadoolo yu bari ci ñoom dañ daan toog ay weer tàndarma kese mooy seen lekk yéen ñëpp yàgg ngeen dégg yaay ay chane kër yonent bi daan nañ toog séntu weer séntu waat weer séntu waat weer cin du takk kër yonent bi lañ daan dunde mooy tàndarma ak ndox mooy njëkki mooy añ mooy reer tàndarma ndox tàndarma ndox gis ngeen donte ne ne suñ borom def na ci ay éléments de résistance yoo xam ne am na lenn ni borom xam-xam yi wax ne benn tàndarma li ci nekk ci ay éléments boo ko bëggoon seet leneen da nga dajalu jege cent fruits téeméeri fruits benn tàndarma dajale na li nekk ci fruits yooyu yépp di xéewal ci xéewalu borom bi subhanahu wa taala borom boobu subhanahu wa taala ne ca laa génne ay jardin yoo xam ne datt yaa nga rëy doon lu yaatu comme ni ngeen koy gisee sunu guy yi nekk ci àll bi may leen ay façon fruit yoo xam ne nii benn bokkut ak sa moroom te boo demee ci beneen aaya suñu borom ne yusqa bi ma in waahid nga gis mbokkul million de éléments yi suñu borom génne benn bokkut ak sa moroom boo jëloon léegi benn selmaxa fii léegi dagg dagg te banaana jox ko mu ne ah lii de banaana la mi ngi noonu nga dagg carotte jox ko mu ne lii carotte la nga xool cafka gi benn bokku ci yii ngi weex yii ngi forox yii ngi saf suukar et pourtant benn suuf la et pourtant benn ndox la loolu lépp ci kattanu borom bi subhanahu wa taala borom bi wërsëgal ñu it gàncax goo xam ne suñu jur ñoo koy lekk ne xam ngeen doomu aadama yi bu doon li ñuy bay di ko dundee ca la ñu war a dundal seeni fas ak seeni giléem ndax dana sotti gaa yi daanu sotti waaye suñu borom moo ñuy génneel gàncax goo xam ne jur gi lañ koy dajaleel ñoom ñuy lekk ngay gis tey boo demee ci àll bi ñu jël seeni jur rek boyal dañuy lekk ba suur bu ngoonee nga dajale waat indi ci kër gi muy ab ba lii lépp di xéewal ñeel leen ak seeni jur waaye it ngiree doomu aadama bi nga xame ci ne sa borom yàlla day bi man lii mooy borom kàttan gi borom boobu nag ne bis dana mës a ñëw yàlla sant israfil mu ëf ca béjjën ba bruit boobu muy àndal bruit la boo xam ne danay fukk nopp doomu aadama yi ba dootuñu mën a dégg ci keroog la yàllay dajale nit ñi pour àtte leen suñu borom nee na nit dana toog seen frère am laqatu ko seen yaayam laqatu ko seen baayam laqatu ko seen ay doomam laqatu leen lu waral lii mooy keroog képp ci doomu aadama yi am nga lu la doy sëkk suñu yonent alayhi salaam ne bu ngeen di génn seen i bàmmeel wala bu ñuy génn suñu bàmmeel ñoom ñépp yaramu neen la ñuy def su nee Aysa na ko ha góor ak jigéen mu ne ko waaw waaw mu ne cey sama awra keroog mu ne ko hey Aysa mbir ba gën naa ñàng ngay xalaat naan man góor la laa dendal am jigéen laa dendal mbokk dekki teg du si pénc yonent yi yépp dañuy sukk naan nafsi nafsi ay yàlla ñaanuma loolu dul sama bakkan ay yàlla sama bakkan sama bakkan ndax jàpp nga ne boo ci boolee kenn sax yàlla du nangu ñaan gi waaw nafsi nafsi loolu it moo tax ba ngal la waay ku ragal bis boobu yaakaaral kay xecc la ci bis boobu xam ne kenn rek la waa ji mu ne ah man de suñ càmm day na ma àdduna ak àllaaxira suñ borom nee na suñ càmm bu gis yaayam day daw bu gisee ay doomam dañuy daw bu gisee ay frère am day daw noo koy yaakaare àdduna ak àllaaxira cee ngaa yaakaar yàlla bi nga xam ne moo nar a génn suñ càmm ci tiitaange bi heure bu ko neexee yow it mu génne waale la ca tiitaange ba ki xel lu mbokk li lay def li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ku nekk dana am loola doy sëkk lu dul yàlla woo na la atte la ñu jox la say këyit ci sa ndeyjoor ca ngay doog a daw nag doog a xalaat koy xalaat mais tant que sa résultat génnagul doomu aadama yi kenn du toppatoo kenn mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni bu résultat yi génnee ca ngay gis kanam yoo xam ne daañu leer kanam yoo xam ne ña ngay reetaan kanam yoo xam ne ña ngay wane seenu mbékk lu tax seen résultat génne na àjjana lañ jëm yàlla yàlla boole ñu ca waaye bu këree di nga gis kanam yoo xam ne pënd baa ko yiir ma nga lëndëm këruus ma nga ñuul kukk lu ko waraloon bi ñu nekkee ci kaw suuf dañoo nekkoon kafara dañoo weddi woon waxi yàlla fajara nekkoon di jëf la yàlla subhanahu wa taala tere woon loolu moo leen jural loolu mbokk li mooy jeexal suratu abasa incha allah ñu jël suratu kuwirat